jigéen ñi bokk ci Benno Bokk Yaakaar ci alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñett wane nañ seen bopp ngir jox président Macky Sall ndam Ndeye Mbacke moom moo yor seen kàddu nee nañ ñu bàyyi xel jigéen ñi bu baax. di remercier nag jigéenu commune bu Bambey di leen wax ne ana carte yi fii jàpp naa ne ñi fi nekk ñëpp am carte d'identité soxna Fatou seen moom it mu nga woon ca ndaje ma lam wax rek moom moo di jigéen ñi ñoom ñooy ay gor te war nañ leen a jàppale bu baax. a téye li mu yor a yaatu la woon muy élection Euh, législatif nga xam ne ci la ñuy tànne ñu ñuy nekkal suñu pencu ndaw réew mi maire Coumba ñu tànn ko mu jigéenu jàmbaar ñu tànn Ibrahima Khalil Fall parce que tànnoon nañ ko tànnaat ko donc kon bu ñu tànnee maire Coumba muy suñu yaay di suñu mag di suñu cousine di suñu lépp ñun ñëpp dañoo ànd sotle ko sans exception ñëpp a ànd bi liggéey bi bu loolu weesoo mani fi ñu jëm dafa am solo torop kon bu ko kenn caaxaane mokk na mokk na mokk na mokk na ñun dañoo bëgg mu ne rumbax ba duñ ko lay lay parce que bu mokkee buñ toogee ne mokk na rek dernier virage bi samedi fa la affaire bi gën a grave kon bu ñu toog ne mokk na samedi amul nopp lu xam nga ñu altine bu ñu feetee suñu victoire ba pare bu ne demal fa neex. fi nekkoon maire bu Bambey di Gana Mbaye ànd ak maire bu Bambey bu yees di Assane Dia daal di tontu Aïda Mbodj ne moom nag moom wartaxas kenn ci transhumance ndaxte moom moo ko njëkkee. muy critiqué moom moo waroon am courage taxaw waxal boppam mais xam nañ ne du wax parce que elle très mal placée pour joxe ay conseils naan nit parce que koo xamante ne ni ànd nag ab Diouf mu daanu nga ànd ak Ablaye Wade mu daanu nga créer sa mouvement créer sa mouvement ñun ñu doon ànd ak moom ba 2017 mu def la mu def ñu génn 2017 en pleine campagne électorale législative comme yi ñu dëgmal nii ca lañ génnoon en 2017 duma ko duma yu metti ci commune Bambey parce que 21 bureau moo fi amoon jamono yooyu ñu gagné ko ci 20 bureau y compris bureau ba mu voté kooku elle est mal placée pour joxe ay conseils yu ngor elle est très mal placée. ndaje ma bari woon lool ay nit. jigéen ñi jóge ci département bi yépp ñoo fekk ci leen ngir la ñu bëgg rek moom moo di soxna Kumba Diop ñu jàppale ko ba mu nekk député waaye nag président de la république ab majorité ci assemblée nationale. nationale